waaw ñu fekk la fii yow yaay conservateur teen bi tey gàmmu gi nag ngeen koy gàmmu gi xam ne ñu ngi war a am lëndi nag ngeen koy waajalee waaw gàmmu gi moom euh, euh, gàmmu moom dañ koy waaje comme ni ko Cheikh Ibrahima ko di waajal rek parce que gàmmu bu xasee ñëw mun nañ ko jàpp ne comme asamaan su taw ah, euh, béykat bi am jiwam bu mat sel am jiwam ceebu am ceebu xale bu ñu xam mooy taw bu njëkk Cheikh Ibrahima ceebu mooy gàmmu gàmmu xasee ñëw lépp am ci la koy investi dégg nga xam naa ay gan yaa ngi ñëw xam ne gan yi ñu gan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu am ci la koy investi bon gan yooyu nag ah, ba tey loolu ñu muy continuer lay doon ñu ngi bàyyi ay réew réew ñoo fi di leen fi ñëw it wut suñu xaalis 90 pour cent ñi fi ñëw yëpp day ñëw pour day ñëw pour wut si yàlla rek ci loolu lañ nekk préparation boobu mooy nekk fi daay man rek di continuité te fi ñu toll nii waaw gan yooyu nag suñu gan lañ gan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ci boppam wax na ci làmmiñ bi dama dëkkam bii dëkk gan yi la bàyyi wax loolu ci boppam Ismaïla wax ko ba mu ko wax maa ngi toog ci jumaa ji mooy dëkkam bii dëkk gan yi la kon na gan yi ku ci yegg si yegg si nga sa dëkk foo em yaa fa em loo sa ñaanal loo soxla loo sa Ibrahima moo ko préparé bo moo tax gis nga ay nationalité fi daje nga xam ne fu ñu bàyyee ko yàlla rek a tax ñëw kon nag fu ci waay ku ci waay mënti bàyyi di ñëw sa prévention mooy lu ma yóbbu ci gàmmu ga te lépp lu ñu indi dañu koy bàyyee kon na ñun ñi nga xam ñooy dal yi fu ñu mënti toll lu ñu am nañ leen ko bàyyee yaatal gan yi yaatal xol yi dégg nga mun a am ngërmande yontu si nga sama Alaaji Cheikh Ibrahima am ngërmande yontu sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy préparation gàmmu ci li nga xam ne moom laa ci mën a wax waaw bu ñu bu ma dellusiwaatee ci teen bi maanaam ay caractéristiques am quoi. waaw maanaam tey profondeur bi lan la ñaata ndox la mën a génneeg yi ni mel. waaw loolu aussi euh, teen bi euh, si nous revenons à l'histoire c'est un patrimoine. patrimoine là parce que l'histoire est divisée en trois parties il y a écrit donc cinq vestiaires bon profondeur bi c'est 9 mètres il y a que deux sources quand vous mesurez à la de Cheikh Ibrahima mètres virgule 80 centimètres l' intervalle bi nga xam moo bàyyi ko jumaa ñëw c'est 20 mètres 80 fii mooy centre graphique de Médine à l'axe waaw centre jamais bu ñëpp doon di ko roy mu ngi ci loolu ci karama Cheikh Ibrahima la bokk yéen a gis mbooloo mi ñëw di naan di ñëw demati encore bu coupure amee ci dëkk bi seku la ci dëkk ku am na fi nga ko amee kon nag bàyyi xaaru ken bàyyi xaaru ken boo demee biram dem boo mbiram dem dem continuer lay def moo tax lépp ko prévoir. si lu tax bi nga xam ne sëñ bi bi lu muy ñëw fii ci ay jafe-jafe la nekk ndox boo naan amut yaa ngi may dégg ndox boo naan amut waaye ci itte moom Maulana Cheikh Ibrahim a ah, taarix ten bi boo gisee mën ne mën noo wax taarix nit it waxloo teen jumaa ji pis moom bi mu koy de sa 1930 il avait l'âge de 37 ans dëkk bi mu koy fondé c'est de 1930 37 boobu ci la njëkk a dem Màkka mais laata dem Màkka teen bi taxawal na ko lan nekkoon ni yéeneem nag mooy pour taxaw néegi yàlla bii nga xam moo ngeen jàkkaarloo tey jii 1937 bi ñu 37 boobu ci lañ tàmbali jumaa ji une dimension de 25 mètres sur 15 mètres mooy masjid ol mooy jumaa ju njëkk boo duy minbar boobu ngay gis moo nekkoon jumaa ju njëkk ji depuis loolu nag ah demoon na bi jamono ah disparaître disparaître day répété zam-zam bala ñu dawal màkka alhamdulilah rabbi muy demoon toog na demoon na bay jamono naa nga mi seekil pour xam ko waaye yàlla mooy rey mooy dekkil ba nga ko naree aussi loolu moo ngi sabab mu ko jaaree ci Abdoul Talib comme ni ko borom xam-xam waxee waaye Ibrahima tey nag bii mu koy defi aussi yéen a mooy tax néegi yàlla bi tax néegi yàlla bi gannaaw bi ñu tabaxee jumaa yi 1937 ba le 16 février 58 robinet ñëw ju robinet fi ne fi mais teen bi mu disparaît dem nañ ba jamono aussi yàlla li may wax ba tey mooy rey mooy dekki ba mu ko nar a dekk laa moo koy jaarale ci taaw Alaaji Abdoulaye mi nga xam ne tey jii moo ko renouvelé ba doomu aadama ko jëriñ parce jàpp nañ ne bàyyi lépp mu bàyyi ci kaw suuf dañ ko war a jariñoo moo tax teen bi euh, continuer lay doon moo ko rénové ba teen bi dekkiyaat ba tey àdduna sëpp ñu ngi ñëw di ko jëriñoo gannaaw fi mu bàyyi ko aussi ki nga xam ne mooy mooy rakkam Cheikh Ahmed moom it euh, jàpp ci def ci lépp renévaat bu gën a mel na jamono ci jamono yi ñu dem mi nga xam moom fi bàyyi ko aussi ki nga xam Cheikh Ahmed Tidiane ñëw moom it dal di ko renévaat béew méngoog jamono tant bi nga gis ni bokk ci defal ak yeneen yeneen kii nga xam tooy Mouhamad Mahi moom it gis nga yéen ngi fekk en cours de chantier li nga lii yëpp dañ ko bëggoon a defaat parce que kenn ku ne bi nga ñëw daal fekk loon fi lii mais loolu ça dañuy continuer day moderniser day gon di dem mooy taarix jumaa ji ak taarix jumaa ji mooy taarix teen bi parce que 45 ans mën na Cheikh Ibrahima def fii teen bi nettil na mais ci jamono yu ci jamono yu moom ndaw sangam ci teen bi da leen doyoon am na kenn ci magi taalibe yi ñuy wax maam Fama ci bokkoon na ci ñi ko doon root yooyu jamono ci ay bëri di ko di muy soxla Ibrahima wala loolu taarix la boo xam ne lu ñu ma netti li ma di ko netti laal daal mais loolu am na lu ma ci fekke ak lu ma ci fekkoon waaw ñu ngi ñu leen di féliciter yéen ñi nga xam ne yéen presse di déplacer ñëw ci bés yu mel nii ci terrain bi dégg nga di jànkuwaay ci yoon yooyu yëpp digal yoon bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñu ngi leen ci gërëm ngërëmaan boo xam ne fu mu tàmbali am fu mu em loolu yal nekk continuité boo xam ne rajo gën a yokk euh, gën a yokk nga xam lépp lu ñëw rek mun nañ koo defar pour ñu ñëw ëllëg loolu bari ñu ngi koy sant yàlla yàlla yàlla def loolu plus presse loolu dégg Sénégal foo mu ne traitement la ko indi te déplacé la kooku nag wala leen di ñaanal waaw bés bu mel ni bu jël ngeen teew euh, def seen liggéey def seen liggéey comme il le faut dégg nga loolu lu am solo la lu am solo la wala lii mooy ni nga xam ne ci ma gàtt la si mën a